no bi itam yeneen koy gis ci réseaux sociaux yi macha allah teg na tànk ngir liggéeyam euh, xereñ bi mu ci xereñ ak man gi mu ko man moo tax fu mu toll tamit ñii ñi di ko jublu di ko woo ba tax na moo tax tam ma seet siwaat ko sëñ Xaadi maa ngi lay nuyu bisimilah ñoo ngi leen fay di nuyu àdduna ñuy seetaan ñëpp ah di jaar ñëpp tamit di baalu ñëpp ak euh, duñ fi gan nag ndax yàgg nañu la seet si tey dañuy gën a yaatal rek ci mbirum faj ndax ñu ngi doon waxtaan bi passé dugg ci wàllum ñi amee mbirum rab ah, ñi amee jafe-jafe ci seen liggéey xale yu góor yi nga xamante ne bëgg nañu jabar mënuñu am soxna am na rek sànq ku ci siñaale ak itam jigéen ñi bëgg borom kër mbir yi jafe lool ak wërsëg yi tëju yëpp tey nañ ci dugg gën ci xuus nag surtout ci mbirum euh, yokk awra nga xam ne jamono bi ñi ñi ñu la ci woo fu ne yokkum awra boobu sëñ Xaadim moom cosaan li fan nga ko jëlee waaw cosaan li mooy mbiru suñu borom la rek lu suñu borom def ci man la waaw ma gëstu ko jàng ko xam ko bu baax waaw di ko def waaw ndax parce que liggéey bi ñuy liggéey ah suma maam da daan faj di ñaan yàlla xiir ma ci tamit ma koy def lépp lu newoon ci moom jël naa ko ba dem wutiwaat mhm. waaw dikk di ko def ma yokk awra boobu di ci ñaanal nit ñi ah nit ñi di ci gis seen bopp waaw. Ah. amul kenn koo xamante ne tam ci mbirum yokk awra moom mus na ci gis ay conséquences yoo ko defal ba mu ñëw mu signalé la loolu. conséquence mooy lan. comme maanaam ñu yokkal ko awram mu gis que ne daal lii xëy na am yokk nañ ko mais am na beneen lu mu ko indi loo xam ne daal moom gënalu ko. déedéet déedéet moom bu ñu ko yokkee bu dee yàlla suñu borom jàpp na ci ñu yokkal la ah du am benn jafe-jafe. ni nga ko bëggee di nga ko amee noonu ni nga ko bëggee ci kàttanu si borom di ko amee noonu ci wàllu yokk bi. Hmm. waaw ñaan nag mooy li may wax rek loolu yëpp sa xeetu ñaan la ñaan nag ñaan yàlla rek la dañuy ñaan yàlla suy borom te yàlla suy borom bi mooy nangu ñaan moo ne ñaan leen moo may leen. Hmm. ñun nag dañuy dem wuti suñu bagage suñu suñuy mbir tekki di ñaan yàlla suñu borom des fois ñu ñaanal nit ki aajoom faju des fois ñu ñaanal nit ki. mën na cee bañ a gis boppam du man biir suñu borom la jàpp naa ne képp ku ma ñaanal rek sa aajo na faju so boo dee xool ñu ma ci ñaanal seen aajo faju moo ëpp fuuf ñi ci gisul ñëpp nag mun ñoo fekk bokk seen aajo faju dana may ñaan rek waaw. Euh, li ma gën a neex ci bu may waxtaan ak yow yow moom doo nekk koo xam ne dangay ngay jël mbir yi wane ne day am par force loolu rek wane na ne euh, maandu te itam am na ci sa liggéey ndax euh, ku la déglu ni ngay waxee. man señ sëñ ñaan katu yalla la rek damay ñaan yalla moy ki nang ñaan yi lolu yombul euh, vraiment serigne bari euh, nga len di deg ñukoy wax mais ci mbirum rap rap mom ban conséquence lay attaquer nit ki ba yeen serigne bi bu ngeen ko xolé ngeen xam ki rap moko teye wa xam nga luñu xam la moy limay wax ci kàddu chaque jour rek liñu nek nekk lu mu dikkal lu suñu borom def ci ñun la suñu maam daan ko def mu doon lu mu xam ñu ko ci xam bari trop ñu judd doon yi sët mhm. suñu boroom xéer ko ci ñun ñu jël loolu ak lu ñu jàng ak lu ñu wuti ci nit ñi boole lépp di ci liggéey di ñaan yàlla suñu boroom sa képp ku amee rab boo dikkee suñu xaadim bu la xoolee ba xam ne rab moo ngi ci yow dina ñaan yàlla suñu borom def la mu war a def bu dee say bagage néewul ci kër gi fii da nga wara a dem àll ba guy ga. Hmm. dama lay yobbu ci guy ndax am na ci ño mën nga ak ñom ah fi nga ak ñom far seen aajo du fajo am na ño xamante fa nga yobbu len guy pour defal len fofu ay mbir. guy nak nag ne ñu defuñu fa lu bon defuñu fa sacrifice defuñu fa lu bon ñuy pouvoir. Hmm. Ah, dañuy ñaan yalla rek sa yalla moy nangu ñaan. mooy li may wax rek. Mhm. ci lu wér lañ nekk ci dëgg lañ toog. Mhm. waaw euh, bi nga baal moom damay gis euh, fajkat yu bari ñu mel ne yéen dañuy taamu lu mel ni ay guy. guy secret la xanaa ci seen liggéey wàllum liggéey. waaw man de sama guy. Mhm. secret la ndax képp ko xam sama maam sama maam ci li mu daan li mu yoroon ci guy la newoon kon la ma yor jële ko ci moom ci guy gi rek lañ mën a ne. da doon def ko ci guy gi. guy googu benn guy boobu rek la fa ngay liggéey wala ay guy guy guy. déedéet euh, moom ñaari guy la dafa am guy boo xamante ni mooy guy gu mag gi boobu ci kër gi mag gi la ne. Mhm. am na beneen guy goo xamante ni moom moo ngi nekk ci àll bi. bi ci nekk rek ak la ñuy jëfandikoo ah, guy gi ku ci nekk rek moom ak lam la la la bu laajee foofu foofu la ñuy def bu laajee ci bu àll bi ci bu àll bi la euh, ci rab moom yow da nga koy dindi tifaaxan wala euh, da da da nga koy calmer rek déedéet ñun yoruñu lay calmer sa ñiy seetaan xam sëñ xaadim jot a ñëw si ñun jot a jaar si ñun xam nañ ñu ñuy wax. lu bari ñu fa ñëw moom dem nañ ak seen sago. dem nañ am seen sago. rab sonalatu leen. leen. leneen kay lañuy ñu waaye du doon rab boo amee jàngoro bi nga xam mooy jàngoro rab la. Mm-hmm. nga ñëw. kàttan si ba sa aada faj. Euh, guy googu ñu gis la ci réseaux sociaux yi ñu gis la ci ci télé yi. Euh, maanaam daal guy googu moom secret mu ngi fa mais du mbirum rab rek guy gi la ñu fay def xanaa. déedéet du mbirum rab dong moom lañ fay def. Mhm. Ah, ndax parce que guy googu ah dañ fay samp nit dañ fay dindi liggéey dañ fay defar ay bayre dañ fay defar lu bëri daal moo ngi fa daal guy gi daal mu ngi toog di lim la fa nekk lépp. Mhm. lu bari dañ ko fay liggéey euh, xale bu góor bi nga xam ne euh, moom léegi rek mu ngi lay wax mbirum soxna. yow soxna tey boo ko buggoon a maanaam xale góor yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan tey ku ci buggoon soxna mu te ko lool mu bugg a ñëw ci yow moom jokkoo bi nan lay demee. du nekk luy jafe dafa am lu muy indi wala nan lay demee daal. pour waaw maanaam bu dee da nga bëgg la boo dikkee dañuy xool say biir ba pare rek bu ñu ko xoolee bu dee dafa am lu ci taxaw ndax parce que rab mun na cee taxaw tamit euh, ay yeneen bagage mën na cee nekk waaye lu lépp lu ci mun mënti nekk rek. bu ñu nee lii la lii la rek loolu la buñ la ci defalee li ngay li lay defal incha allahu rabbi moom ñu ci am ndaw. jigéen ñi nag. waaw bu dee jigéen ñi moom mosal parti ci bëri rab moo leen def loolu. Hmm. dañu amee àndandoo. àndandoo bi ñuy amee mun na leen yàqal pour ñu am borom kër day jafe trop képp ku dem ba mu am yaakaar ni kii dina leen denc diggante bi yàqu. rab moo koy def rab moo koy def. wala mu dugal la ci sëy sëy boobu doo ci amul lu la neex ay jafe-jafe rek nga ci am. rab moo koy def hmm. wala mu dugal la si sëy boo sëyee pour nga am bant waralam la fu ne dañ fa fajoo fu ne di nga fa faju sa am na loo xam ne ci nit ñi bàyyi seen xel du fajug hôpital hmm. du fajug hôpital rab du fajug hôpital des fois nga gis kuy crise koo xam te ne day leer ki raba ko nga yóbbu ko hôpital di samp biteel di joxe comprimé muy nelaw du koy gën a yokk hmm. bu la dalee xoolal ñi nga xamante ni kat suñu borom mën loo na leen loolu xam loo leen loolu nga yóbbu leen foofu nit dimbali la ci loolu waaye nit koo xam day am problème rab nga jël ko yenn yóbbu hôpital. mu gën fa amee problème mu gën a am problème day dema dema dem ba affaire da koy dominer fa muy gën a sonn nekk nga koy yenn di ko yóbbu si sëriñ bi sa sëriñ bi bu jéemee tuuti affaire bi te gën a dëgër nga ne ñëpp a sëñ bi xamul dara wala nangam naan te pourtant hôpital bu nga ko yóbbu. mooy loolu jógoo mm-hmm. waaw waaye bu la teelee dal ngay sentir sa bopp crise wala sentir sa bopp ne yow mii am na lu nekk ci yow demal yuy def kat ci olof yi. moo ko dafa fajum tubaab dafa am fajum olof am ndax ñun ñi di wax ak yow ay doomu adama rek lañ des fois ñu yëg suñu yaram loo xamante ni dañuy dem hôpital dañuy xam ne lii hôpital moo koy def dañuy dem hôpital des fois yëg suñu yaram loo xamante ni lii dañuy xam ne mbiru olof la dañuy dem si olof yi def lañu war a def. Mhm. kon ku ci nekk ak na nga war a defee suñu borom moo bind loolu am mhm. yëpp. waaw euh, sëriñ bi nit bu gisee ne moom euh, mu ngi tëju lu mu laal rek mu jafe. bunt bu mu fëgg rek bunt boobu dafay dëgër mhm. loolu ca yaram bala wala itam loolu fan la waaw euh, ak tëju moom mun na nekk nit ki si yaram bi mën na nekk tamit si rab loolu yépp mën na cee nekk ndax nit ki di nga gis koo xamante ne fu mu dugg mu dëgër mhm. fu mu dugg mu dëgër lu mu yor du taxaw si loxoom ay jafe-jafe rek lay am foo ko fekk xolam a ngi tàng muy mer wala yaram bi tàng muy mer chaque jour daal day am jafe-jafe yoo xam mooy loolu mënul yor dara rab da koy en général rab da koy def. Mm-hmm. waaye bu la dalee. Mm-hmm. moom demal ñaan lu ji. ñaan lu daal moo cay su moo ci mooy lépp. ñaan muy lépp muy ngànnaayu jullit. kon daal ñaan bàyyiwul dara. déedéet ñaan amul lu mënta saafara. kon sëriñ bi foo faut que Sénégal ñu seet leen ñu mel ne yéen jug nag di leen seeti ji pour mën a. defar ñaan dafa am. ñaan mm-hmm. dafa am. ñaan dafa am de. ñaan daal du fo du fo eh, ñi nga xam ne nag jamono bii réseaux sociaux yi bëri ba tamit eh, sëriñ yi lal basang yi bari na. ba xàmmeetuñu sax ñi nga xam ne eh, ñoom ñoo yore mbir yi ndax ku jug lal basang ba wóolootuñ kenn. Mm-hmm. yow looy wax ñi nga xam ne bëgg nañu seeti sëriñ mais à travers li ñuy gis ci réseau yi moo tax ñemeetuñu kenn. man daal li may ñaan ku si nekk ku jug sëriñ rek yal na la yàlla boole kalay faj yal na la yàlla boole kalay faj. ndax mbir mi yaatu na ku ci nekk rek képp ku toog ba bëgg sëriñ na la ba nga tijji internet bi hmm. yal na la ci yàlla boole ki ki lay faj loolu daal lay ñaanal ñëpp jamono bi nag uh, mbirum néew kantan il paraît que dafa sonal àddina bi lool eh, ñu bari di wax ne uh, ci lekk yi la ñii di wax itam ci maanaam ci ñàkk wér gi la mm-hmm. mbirum néew kàntan loolu yow fan. loolu moom dama la ciy dog tuuti nit ñi kow gis mu néew mu néew kàttan kooku aajoom faju na suñu xaadem indi na yu bees te dinaa leen ko woon léegi. waaw mbirum néew kàttan moom képp koo xamante ne amee nga ko kooku seen aajo faju na garab bi mhm. muy jodd bi kii mooy jodd kii mooy jodd mhm. gisoo waaj ni mu taxawee foofu ni jodd mhm. gis na waaw moo taxaw nii ah? waaw Mm-hmm. loolu mooy jodd bi. Mm-hmm. am na bu mag am na bu ndaw. maanaam kii mooy garab gi nga xamante ne moom moo faj seen néew kantan. bi ngeen di néew kat waaw moom la bii moo ci gaaw. Mm-hmm. bii moom da ngay gis da jël léegi gis ko léegi. maanaam bii bu mag bi la bii. bii mooy bu ndaw bi waaw. jox ma ko. da ngay jël léegi gis léegi. maanaam kii moom jël léegi la gis léegi. waaw moom nu ngi koy utiliser moom mi nga xam ne dafa am problème mu néew kantan. kii nii boo demee bay tëdd. reeral ba suur xelli sa kaas ba mu fees boo amee lem def ci tuuti yëngal ko naan jeex na. ah lem lañ koy booleel lem nga koy booleel. Mhm. xelil naan day ko teg sa frigo muy sedd rek. Mhm. waaw moom moom mooy moo baax si néew kattan. kon yéen ñi amee jafe-jafe. jarul nit di naani doom. Mhm. jarul nit di pikiru jarul nit di def dara bii moo gën a gaaw da ngay jël léegi gis léegi mun a jot taxaw. Euh, te moo tudd jot euh, gi pour rek sëriñ bi nga leeralaale yi amul benn conséquence. déedéet amul benn conséquence yi man maa ko liggéeyal sama bopp amul benn conséquence dañu ko jot jël xam nañ ci dara. garab la boo xamante ne képp ku jël. Mhm. di nga ci gis sa bopp. kon yéen ko gisee noonu euh, yéen ñi nga xam ne daal euh, problème mu néew kàntan nekkoon na ah. seen problème jarul ngeen di dem pharmacie di jël ay comprimé waa baa ngay pikiru ah. euh, Serigne Khadim indi na leen ko mu ngi nii garab yu am solo naturel nag la ko liggéeyee. Mhm. mu ne daal boo reeree ba pare. Ah. reeral ba suur nga jël rek yow sa kaas kaasu attaay lañ koy naanee doo naan kaasu attaay kaasu ndekki ngay xelli ba mu fees ngay xelli ba mu fees nga jël naan mu ne nga jël nga jël naan waaw nay sedd rek ngay naan mu ne da ngay dugal ci frigo bi muy sedd rek ngay naan kon seen problème mu euh, faiblesse sexuelle moom euh, féete na boor euh, sëriñ bi buñ génnee foofu dañuy dugg rek ci li nga xamante ne itam jamono bi ñu ngi koy gis xale yi góor yëpp di jël gaal yi di dugg di dem bitim réew mhm. xanaa yéen war ngeen am ay ñaan yoo xam ne nag war na yombal ci yombal visa yi. Mhm. yombal kayit yi ñu mën a jaar nag ci yoon bu normal bi sëriñ bi. waaw yooyu dañ koy def waaye mooy li may wax nag yàgg naa koo wax samay vidéo mhm. képp ku bëgg a ñaan lu tukki nga nga yor dara nga yor lu war a mën a mat tukki lu lu la mën a yóbbu nga tukki ndax mbirum tukki dafa doon loo xam boo ci lu damaa bëgg a tukki yoroo dara taxut a dem. Mhm. sëriñ damaa bëgg nga ñaanal ma tukki sëriñ bu la ñaanal sa yoroo loo demee nooy demee. Mhm. xam nga am na yoo xam nit ñi nañ ci bàyyi seen xel loolu tappale la mhm. bala ngay ñaan lu tukki na fekk nga téelu dëgër mu leer na yow mun ngaa dem lijjanti say këyit këyit yi ngay lijjanti dëgër mhm. ndax di gis ko yor xaalisam dem di lijjanti këyit heure boo demee mbir mi dëgër kooku boo dikkee sëñ xaadim mën na ci dara mën na laa defal ba nga xamante ni boo demee incha allahu rabbi ñu tamponné la visa maanaam daal euh, sëriñ bi bu ma la déggee lii ngay wax nii mooy la yonent bi waxoon borom gëléem bi rek bi mu ko laajee sa gëléem bi mu ne dafa mu ne te tënkal sa gëléem bi ba pare nga doog a wàkkir doog a wax kenn mooy loolu kon nit ki da ngay def da ngay euh, am dara ba pare doog a doog a ñaanlu doog euh, waaye boo yorul dara mhm. ni da ngay ñaanlu pour tukki nooy tukkee xanaa réewum jàmbur doo fa dem yoroo dara xanaa doo yëg si avion bi doo fay nañu wax dëgg kon daal mbir la boo xam ne foog nga jaar ci la nga war a jaar. faaw nga jaar ci la nga war a jaar ko doo ko ñaanlu ñu defal la lañ lay defal boo demee këyit bu tànte suñu boroom def ci liggan xewal nga dem. Euh, ñi nga xam ne maa ngi déggante ak ñoom fan yi rek ci internet bi euh, ci euh, laajte yi ñuy wax ñu ne ñoom tamit Europe ñi nga xam ne dañ faa nekk am ay jafe-jafe. Mm-hmm. bari na fa ñoo xam ne seen liggéey dem na ba ci biir doxul wala sax ñii. ñu ngi doga ñew mais ñom ñu bëgg bunt yi ko ñom ñu ngi lay sétane ci ngor euh, ngor plus mm-hmm. kon war nañu euh, xam ñu melni yeen joko ak yow noy def ak ñoñu ñam jafé jafé wa lolu mom dañ ci sante yalla ba ndax ñi mm-hmm. ci digalel bari na torop ñu yo xam fofu tamit bari na torop ma sha allah bari nañ fay taalibi ñu xamanteni di jëflenté ak ñom ci lool ñu leen ci ñaanal ci walu këyit ci walu seen jafé jafé yi nekk fofu wet di gis bokk ci. voilà moom lu mu mën da lay wax man la. man la lu mu mën ne la lii. mënuma eh, tamit damay ñaan rek damay ñaan yàlla suñu borom rek. Mhm. du ma assuré kenn ni boo dikkee ci suñu xaadim sa aajo faju ndax tamit na leer du ma assuré kenn ni la boo dikkee ci suñu xaadim sa aajo faju yàlla laay ñaan. Mhm. dinaa nit bu dikkee dinaa def li ma war a def lépp bàyyi lépp yàlla suñu borom nag. Mhm. waaye néew na koo jëflante daal mu mu mu gisu ci. gisu déedéet déedéet. déedéet ku gëm yàlla ci loolu ba ñëw. Hmm. boo dikkee sa ajo fajo ci kàttanu si borom ndax la ñu war a def dinañ ko def incha allahu yi ba sa aajo faju sëriñ bi doy def ak ñaame jabeet. waaw loolu am nga ci xam-xam. waaw jabeet moom am nañ ci garab yoo xamante ne yooyu jeex na tax yoo xamante ni ku koy jël moom incha allah moom waxuñu dina deñ completement hmm. waaye moom dootu la sonal. li lay digal waaw ku la jeexee ku la xool xam da nga amee jabeet du la def noonu waaye du la def noonu. du la def noonu. Mhm. waaye li lay tere di nga ko mën a lekk sa du la indi benn jafe-jafe waaye doonu loo xam day denc ci yow complètement déedéet. Jabet est-ce que sëriñ bi gëm nga ne luy deñ carrément ci yaram la. ah lu dul deñ amul. Mhm. lu dul dañ amul sa xam tool daal li waaw loolu laay waaye lu dañ amul. Mhm. xëy na amaana am na ñoo xamante ne mën nañ koo dindi ci nit carrément mu jeex tàkk. ndax yàlla tëlewul dara yàlla tëlewul dara. sa lu mu wàcce rek wàcce na lu koy dindi. da koy saafara asma itam am nga ci. waaw asma tamit am nañ ci garab yoo xamante ni moom ku ko jël moom incha allah ñu ko jot a jël ñëpp seen ajo faju nañ. Hmm. waaw asma. asma tam da nga koy waaw ku ko jot ñu ñu ko jot a jël ñëpp daal seen aajo faju na ci. li lëmbe nag jamono bi muy hémorroïde sonnal na askan bi waaw tamit euh, bu dee hémorroïde bu mu munti doon moo xam mu génn def bi ci naaj boobu am nañ ci garab yoo xamante ni nit ku koy jëfandikoo di ci gis sa bopp. bu dee bu nekk ci biir bi di ballonné biir bi def air. Mhm. di la néewal kàttan wala sa lekk dootul bëri yooyu tamit incha allahu rabbi am nañ ci garab. moom hémorroïde mën na indi néew kàttan ci nit. moo gën a gaaw sax hémorroïde baaxul hémorroïde feebar la boo xamante ne ñu bëri ñun sénégalais ñu ci bëri dañ ko néewal waaye hémorroïde moo gën a gaaw si fàttali nit. bi ngay dégg nii. Mhm. hémorroïde too gën a garaaw. Mhm. baaxul. saree yëpp lay dagg ci biir. loolu boo demee hôpital bu la demee ba nga dem hôpital tey jii boo demee leen doog lañ lay opéré sa opéré bi sens la loo tax hémorroïde moo gën a bon looy gis nii day tiim gu jàpp góor def ko noo xamante ni ba bu tiimee soxnaam du ci ma dara wala mu jékki-jékki awra bi mel luy dellu. hémorroïde dina ko def hémorroïde da koy def. di la ndëmbal say bët. Mm-hmm. boo tiimee lekk doo ci mën dara hémorroïde da koy def. baaxul daal li ma la mën a wax. gàtt moom bokk na kon ci feebar yi gën a feebar bu dangereux la muy hémorroïde feebar bu dangereux la sa ñun sénégalais dañ koo xeeb. dañ koo xeeb sa feebar bu dangereux la. moom gaawee na nit daal. yii moom waaw hémorroïde moom baaxul. kooku moom yow say say garab moom am na ci. waaw am na ci garab yoo xam ni moom incha allahu rabi kuñ ko jox daal si kàttanu si borom dootu la sonal noonu. waaw dootu la sonal moom ci kàttanu si borom. bu la sonaloon tey jii ba mu tere lekk wala tere la sëy wala lépp lu mu la te def moom incha allah di nga tàggoo moom waaw. Euh, sëriñ bi koo xamante ne ni euh, loolu sax euh, laajoon naa la ko fi ci kii bi rek pour ñi nga xam ne rek xam nañ ne sëriñ bi nag moom képp koo xam ne wàllum yàq nit ak lu bon moo la tax a jóg moom bu yéeg si. Mm-hmm. moom du ko liggéey ci mm-hmm. liggéey yi nga xam ne day yàq. Mm-hmm. déedéet yooyu moom doo ko def. déedéet du ma yàq diggante yu bon yooyu nag du ma yàq diggante fekk diggante bu neex trop. ma yàq ko déedéet du ma liggéey tamit nit mu dof du ma liggéey nit mu dee du ma lor doomu aadama mais itam ñi nga xam ne euh, liggéey nañ leen ba ñu yàq ko ba ñu amee problème ñooñu bu ñu leen indee yéen am ngeen ci ay saafara nga xam ne mun ngeen. waaw boobu kooku bu nit buñ ko liggéey ba mu yàq moom boo dikkee moom si kàttanu si borom moom. Sadio Fatou yëpp dañ waaw boobu. kooku booy dikk moom si moom si tàng tàng bi moom la ngay jox li nga jox moom nga sangoo moom booy dikk sa aajo day fajo Euh, léeg-léeg euh, yéen ñi nekk ay sëriñ du ngeen am ay conséquences ci am yu ñu di def wala yooyu muy ñëw waaw moom du ñàkk si liggéey bi mun cee ñàkk hmm. loolu mun cee ñàkk léeg-léeg nga xë yaram nii nga yëg ci ne waaw boobu waaw mun ta ñàkk jinne yi lay doon itam mun na nekk jinne mun na nekk nit ndax kenn mënut a wax ne mënumaa jàpp. kenn mënut a wax kenn mënut koo assuré. mystique mënumaa jàpp loo nekk sëriñ sëriñ mënoo wax mystique mënumaa jàpp. waaw ndax yeneen nag wax ne nañ mystique jàpp na ko xay na nag da ngay fagaru boo xëyee def la nga war a def loolu la rek. te mun na nekk jinne yi mun nañ lay fexeel nit ñi te mun nañ lay fexeel. waaw xam nga moom nu mu lay fexeel mooy mu mere la rek wala maanaam ndax mindee jinne mooy li may wax nag mindeef la. ay mindeef mu doy waar lay de. waaw bëri na doole de. moom dooleem foo ko natt weesu na ko. foo ko natt weesu na ko. Hmm. waaw. tey jii léegi léeg ñu indi leen koo xam ne dañuy wax ne jinne moo ko jàpp di ngeen ci am parfois euh, yéen léegi dina leen dal xanaa ngeen ñu indi leen koo xam ne dana metti lool ci waa waaw déedéet man nag du metti ci man. Hmm. ndax nit bu dee dafa am jënn ju ko dugg ah sonal ko trop dina nekk ci moom boo dikkee bala ma koy laal xam naa man na may def ak moom bu pare xam naa damay préparé wu sama bopp bu pare. Hmm. ba doog bu ma ko songee du ju fenn. Hmm. nit loo xamul rek moo lay indil jafe-jafe. lo xamu rek mo lay indi jafe jafé wa japp na ni lo xam maîtriser ko. Mhm. xam li moy lan du la indil benn jafe-jafe waaw. Euh, sëriñ bi euh, kontaan na lool bu dee nag euh, liñ ma joxoon nak ci waxtu wul sax. Mhm. tay dama néwon rek na finaliser ci ak yow. Mhm. loy jox mbokk yi nga xamné ñoo la do sétane ci Ngor Plus. wa di nuyu ñepp di leen jéggalu bu baax tamit bu yi amna ci ko xamanteni laal Mangi ngi jéggalu ci bu baax a baax a baax waaw di leen jéggalu di leen baalu àq bu baax di leen wax ni sëñ xaadim seen doom seen rak seen mak seen papa ah mu ngi leen di jéggalu bu baax di baalu ñëpp àq mm-hmm. tamit di leen ñaanal jàmm ak wér ak sutura mm-hmm. dinaa ni ñaanal yépp jàmm ñaan suñu réew mi jàmm yàgg fi jàmm am fi xéewali saawaan baawaan mm-hmm. maanaam bu saawaan baawaan jeunes yi nga xamante ñoo ngi dem si gaal gi ñu mun a toog am lu ñu ci jàpp. Mhm. ndax parce que képp ku xamante gis nga ko mu dem ci gaal. Mhm. leen lii rek moo tax mu dem borom jom la. Mhm. bëgg naa teral yaay teral baay. teral doom wala teral jabar loolu dong nga koy tax muy dem kàddu yooyu. waaye amul leneen lu tax muy dem. waaye tamit may lancer message. teraanga jarut mu tay la sa bakkan. teraanga jarut nit di tay la bakkanam. nañu toog muñ. dellu maanaam képp ku yàlla tudd nu fee da nga fa dem di nga fa añ. di Mm-hmm. loolu daal laa lancé message di leen ñaanal jàmm ñi nga xam ñàkk nañ seen bakkan ah di leen jaale seen i mbokk bu baax daal ñi nga xam am nañ ci blessure di leen ñaanal jàmm ñu mën a génn ci loolu mun a delluwaat seen activité ñun tamit ñii ñun présentateurs yi war nañ leen di baal wax ndax léeg-léeg ñun Euh, ci wax rek ñun ñoo leen di laaj ba wax loo leen loo xam ne sax léeg-léeg. ah waaw euh, xam nga yéen moom euh, ci ñun lay doon. waaw yéen moom seen liggéey rek. nga di def seen liggéey rek ngeen di tamit seen liggéey rek ngeen def jërëjëf. nit ku baax la koo xamante ne nii yàgg naa ko seet si waxtaan ak moom mel ni du kese la. ba nga xam ne ñun léeg-léeg leen di laaj loo sax ci tàngoor la ñuy waxee rek loo xam ne ñoom sax du seen mbir mais nit ku disponible mu ngi nii sëñ Xaadim borom tawféex dégg ngeen ko li mu fi wax yëpp am na solo waaw sëriñ bi balaa may tëj eh, béjji yi may gis ak eh, lii nga yor ni lii yéen rek ko yor wala ku ne war na ko mën a yor. déedéet lii moom samay mbir la rek samay mbiru bopp la rek. ah yoo xam ne daal moom mbir mi ñoo moom samay mbiru bopp la ma koy yor. Hmm. bokk na ci lay aar daal xam naa. samay mbiru yàlla rek.